mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullah gàmm nañu ba noppi di naan alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may ñu fekkee ko ay déwéni déwén yu bëri euh, Serigne Aboubacar si yàlla na ko yàlla may gudd fan ak wér waaye ñu ngi fii ci këru kër Al Amin kër Al Amin la ñuy wax Abdoul Aziz Ndiaye euh, inauguré ko ci li nga xamante moom mooy ci gàmm gi ñu nekk tey Abdoul Aziz gàmm nañu ba noppi. am di jàmm yi famille yi ñëpp fekk si la ci kër gi nga xamante moom la ñuy tuddee sa wasila ban yëg-yëg nga ci waaw sant yàlla bu baax di wax alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla bu baax subhaanahu wa di julli ci yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte nag am contentement ci bi ñu yàlla may ñu fekkee gàmmu gi gàmm ko ci jàmm ak salaam ba yàlla jeexal ko ci jàmm ak salaam ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla subhaanahu wa taala rek mu nangul ñu lépp loo xam ne nii jaamu nañ ko ci ci bisu gàmmu gi ak lépp loo xam ne nii julli nañ ko ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla na ko yàlla nangul bépp jullit ak fépp foo ko mën a defee ak fépp foo mën a nekk alhamdulilahi rabbil alamin bokkoon na ci sa mbébét ren ci gàmmu gi nga inauguré kër gi tuddee ko sa la ba pare nit ñi fekkee gàmmu gi waaw sant yàlla bu baax xam nga fii nag mooy Tivaouane Tivaouane dëkku Seydil Hadji Malick la te bu ñu nee Tivaouane xel yëpp dafay dem ci gàmmu xel yëpp dafay dem ci lu mel nii ba tax na ñun comme niñ koy faral di waxee Tivaouane mooy suñu dëkku xol mooy suñu dëkku leer ah lépp lu ñu fi deful rek dañ ko amul bu ñu yàlla suturaalee may ñu tuuti wërsëg ñu ñëw fii ci Tivaouane def fi lu mel nii suñu xel dafa dem ci ki nga xam ni tey lépp lu ñu doon Tivaouane ak lépp lu ñu doon sax fii ci dëkk bi ci loxoom la jaar muy suñu sëriñ di suñu wasila sëriñ Abdul Aziz Al Amin mu duppee kër gi pare ñu tuddee ko rek ci mbaaxu yàlla ak barkeem macha allah. si bisu gàmmu gi si euh, euh, ndékki bi ndékki royal bi dañ la gis nga jaxasoog nit ñi mais bi ma lay seetlu toujours da ngay kontaan da nga waaw man ci nit ñi laa bokk xam nga jaxasoog nit ñi moom mooy li ñëpp war a def ñu àdduna li ci gën a jiitu te ñëpp war ci bàyyi xel. mooy il faut être humble et il faut être modeste am humilité di ànd ak nit ñi di jaxasook ñoom di waxtaan ak ñoom il faut toujours éviter de créer des distances avec doomu aadama yi c'est pas amul benn avantage ci ku mën a doon ba tax na man ñi nga gis ñu fi ñëw ñëpp suma ay xarit lañ sama ay soppe lañ suma ay frère lañ ñi suma ay ndijaay lañ ñi suma ay baay lañ ñi suma ay yaay lañ sama ay sœur lañ kon dafa jaadu te dafa yell tam ma ànd ak ñoom ci fépp fu ñu mën a nekk rek ma nekk fa ak ñoom ndax nit ñi boo leen wooyee ci sa kër ba ñu ñëw da nga war a ubbi sa kanam ubbi sa xel déglu leen di waxtaan ak ñoom pour yaatal leen te loolu mooy farata te ci loolu lañ nekk wax dëgg yàlla Aziz euh, lii bokkoon na ci mbébét yi bokkoon na ci projet yi alhamdulilah sant yàlla dañuy gis at bu yàlla sàkk rek Aziz lu mu defoon benn rek dafay dafay yokk loolu sant yàlla la lan mooy mbébét gi déwén incha allahu rabbi balaa ñuy dem si beneen. waaw sant yàlla rek xam nga Tiwaawan moom dañoo bëgg rek lépp lu ñu fi def di ko xep lépp lu ñu fi dugal di ko xeeb te lépp lu ñu fiy def ñu koy defee ci kaw ndigal ndigal li mooy dëkk bi ci wàllu spiritualité am na kilifa kilifa gi mooy sëriñ Babacar Sy Mansour di xalif général lépp lu ñu fi def ci ndigalam lañ koy defee. taxawaay bu ñu fi amit ci ndigalam lañ koy defee ba yàlla xam na ni ñun lépp lañu def ci Tiwaawan rek dañuy ñaan yàlla bañ cee gis suñu bopp dañuy ñaan yàlla fàtte ko ngir bu nee ñu am beneen pas-pas bu bees wax dëgg yàlla. gis nañu sax dafa dem ba dafa yaatu yàggul dara dem nga Touba. ci sa waayu jur di sëriñ Muntaxa moom itamit yàlla na ko fi yàlla yàggal nga def fa ay teraanga yóbbul ko nag ak njaboot gi yëpp rawatina tamit tey ñu gis sëriñ Moustapha Sy ibn sëriñ Cheikh moom itamit gërëm la daa mel ni ki loolu tamit war na nekk exemple pour ñeneen. waaw man comme ni ma koy faral di waxee man sama ñaan yàlla yëpp ci jiitu mooy je vais être utile à et je vais être utile aussi à l'islam et je vais être l'islam rawatina fii ci Sénégal nga xam ne man. damay dund soufisme damay dund njàngale mag ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon muy njàngalem suñu sëriñ Seydil Hadji malik damay gëstu tam ci suñu njàngalem suñu maam ju baax ci Cheikhul Khadim di mag ñi fi nekk ñëpp muy waa Léona Niassène waa Medina Baye ak waa Cambérène ñëpp damay gëstu te man sama yéene ak sama pas-pas mooy Sénégal lépp doon benn diine ji benn la maanaam nu ma ko mën a waxee rek gis nga l'islam bu doon dëkk ma ni tarixa yi ay appartement la ci biir rek ku ci ne am nga fooy fanaan waaye boo yeewoo yaa ngi ci biir ëtt bi te mooy lislaam kon ñun ñëpp dañ ci war a bàyyi suñu waar ñun ndaw ñi ñun jeunesse bi dañu war a di wane li gën a positif li gën baax di ko wan te di ko jëf ci diggante tarixa yi nekk Sénégal yëpp rawatina ci biir lislaam bi ndax amuñu lu ko ëpp amuñu lu ko raw te ay mag ñu baax ñu sell ñoo ko liggéey ñun waruñu def lu dul jàppale leen ànd ak ñoom ci seen liggéey boobu ba lépp doon benn incha allah. sëñ Moustapha. waaw man waaw dafa jaadu xam nga man Tivaouane moom ni may faral di wax man aw ma fi sens interdit man taalibe Seydil Hadji Malick laa bëgg a doon taalibe Seydil Hadji Malick nag soo ko bëggee doon doo am distinction ci njabootam rawatina nag man sama sëriñ mi nga xam ne moom laa yaakaar mu sëñ Abdoul Aziz Al Amin utalu ma ci Tivaouane daf ma daan wax ni maslaalal ak ñëpp waxtaanal ak ñëpp demal foo bëgg a dem waaw ba tax na man utuma frontière mu sëñ Moustapha bu sëñ Abdoulaye Al Amin muy sëriñ Moustapha bu Al Maktoum muy sëriñ Moustapha bu Pa sëñ Baye Abdou ñoom ñëpp laa yemale man Tiwaawan taalibe laa fi bëgg a doon nag amul distinction man maa ngi fépp taalibe Seydi Hadji Malick rek laa bëgg waaw. bokk na ci projet boo xamante ni mbébétu xalifa bi la muy euh, suñu jumaa ju mag ji nga xamante ni mi ngi nekk en chantier euh, tey est-ce que tey Aziz yaakaar na balaa gàmmu déwén incha allahu rabbi ci mbéwetu kilifa yi mën nañu. waaw incha allah nañ ñaan yàlla rek ci ni ko xalifa bi joxe orientation bi ñu ñaanal ko yàlla ji projet bu mag boobu di projet phare pour Tivaouane nga xam ni c'est un projet boo xam ni tous les talibés le demandent yàlla def na xalifa bi réunir na tous les talibés. d'ici et d'ailleurs de la diaspora et partout pour ñëpp dugal ci seen alal ñëpp def nañ ko ci ñu ñaan yàlla yàlla na ko fekke yàlla nañ ko ubbi ci jàmm suñ ko ubbee mu fekke ko mu fekke ko ci ba mën ñu cee jiite mën ci ñee ànd ak ñun lu yàgg-yàgg nañ ñaan yàlla balaa déwén ñëpp gën a góorlu ñëpp gën a sasu ñëpp gën cee dugal seen alal ak seen ñaq ba liggéey bi mën a yemb incha allah incha allah. dañuy jeexale Aziz euh, c'est un jeune entrepreneur Aziz ay. rakkam ay frère ñoo nekk ci réew mi te toll nañu euh, jamono joo xamante ni nit ñi ñu bëri seen xol seen xel xaw na ëbb tuuti tey lan ngay conseiller à la jeunesse sénégalaise. boo conseil bi may conseiller jeunesse sénégalaise bi yëpp mooy ñun ñëpp nañu nekk une jeunesse consciente une jeunesse boo xam ne day nekk une jeunesse utile à son pays boo xam ni dañuy xam ni rien ne peut se faire dans ce pays sans la jeunesse. nañu approprier wu ce qui se passe dans le pays jël suñu ay responsabilités yu positif nag yoo xam ni rien que pour l'intérêt du Sénégal ñu takku liggéey ut kilifa di wane li baax te fas yéene nekk ay jeunes yu positif jeunes de développement jeunes yoo xam ni ah, yu tegu ci yoon bi nga xam ni moom la ndaw war a tegu ndax comme ni ma koy faral di wax rien n'est impossible pour la jeunesse il faut ñu nangoo liggéey rek am kilifa xam suñu bopp xam lu ñu war xam fi ñu war a teg suñu tànk teg ko fa li ci des nag ñu bàyyi ko ci loxol yàlla moo yor wërsëg moo yor teraanga moo yor lépp képp kum ko jox nga sante ko ko ku mu ko joxalit nga xaar ko xam ne dina ñëw incha allah. lu ma fàtte war a laaj te nga nasoon ko bëgg koo wax lan waaw li nga ma war a laaj xam naa ni li nekk sa xel lépp laaj nga ma ko li ci des mooy di sant sama famille yëpp eh, di ci jiital suma ay waajur bu baax a baax di leen ñaanal yàlla guddal seen fan. ndax tey ñun suñu amee xel wala am pas-pas wala am xalaatu di def lu mel nii ñoom ñooñu ci tette muy suma waajur bu góor ak sama waajur bu jigéen ak sumay tante bi ci des may gërëm suma frère yëpp. démb taataan nañu seeni kàddu ku ci mel ni ki ñoom xalil ñoom ñeneen ak ñeneen dafa mel ni kii da nga am benn sas boo xamante ni sasoo nga ko pour am yoon boole ñuy non xam nga man a ñoom man kër gi du ma fi taaw du fi caat frère laa fi rek mag ci ñi rakk ci ñi comme ci digg bi laa nekk nag li ma mun def mooy fédéré que tout le monde nekk benn ñëpp tegu ci yoon ñëpp tam ñaanal leen yàlla yàlla suturaal leen maa ngi remercier ñëpp di ko teg ci loxo suñu grand frère Massata nga xam ni il a tout fait pour la réussite de l'ensemble des événements yi ñuy def ci Tivaouane man boo gisee gàmmu gi sax sama néeg laay toog wala fii li ci des moom moo ko yor moom moo nekk ci waañ bi mooy def togg yi ñuy togg moo leen indi moo koy séddale moo yor lépp ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may gudd fante sàmm ko sama yeneen rakk yëpp di leen sant di leen gërëm Baye Babacar Ahmed Khalil Soro ñi ci des ñëpp ñoom Baye Abdou ñëpp tout le monde ah ñu ngi leen di sant di sant aussi sama jabar bu baax di ko ñaanal yàlla di ko gërëm ci taxawaay bi ndax li kër gu toll nii ku jël responsabilité gere ko nekk jigéen aussi tam yombul maa ngi koy sant di ko gërëm ci taxawaay bi ci assistance bi ci jàppale bi ci sutura bi nga xam ne mi ngi koy suturaal yàlla na ko yàlla sàmm te aar ko moom njabootam yëpp di gërëm sama xarit yëpp nag ñi nga xam ne am naa leen ñu samay am di jàmm di samay ami d'enfance samay ami de ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm di gërëm particulièrement aussi sama xarit Elimane yónnee na fi teraanga bu bari moo jabaram ñaw ay yére yónnee ma ko ci gàmmu gi maa ngi koy sant di ko gërëm ak mbokkam ak i di gërëm ñëpp nag ñi nga xam ne ñëw nañ fii ñoom oustaz Modou Fall fukki fan mi ngi ci kër gi nekk ak ñun ñoom Cheikh Samb ñoom Mas Kokki Serigne Diop bàyyiwuma kenn mbokk yeeg njaboot geeg Diop Mansour ak tout le monde ñoom ñëpp bàyyi nañ seen yitte ñëw ànd ak ñun te dañ ko def sans intérêt ñëw sàkku si yàlla ànd ak ñun ñu ngi leen di sant di leen gërëm macha allah. laaj de ne bi nee na kër gu am jàkk ban particularité la. waaw xam nga ñun Tivaouane dafa am loo xam ni moo ñu fi indi mooy dëkku leer la dëkku diine la ñun diine moo ñu fi indi sàkku si diine sàkku si leer munoo ñëw ci dëkk nag di sàkku si leer tabax fi kër gu toll nii def fi néeg yu toll nii te amul benn partie boo réserver pour fooy jaamoo yàlla yarewuñ ñu ci noonu defar nañ suñuy néeg dañu war defar néegu yàlla loolu tax kër gi bi ñu ko tabaxee suñu xel li mu njëkk a dem mooy def fi néegu yàlla boo xam ni dañ fi mën di jaamu yàlla ndax taalibe tijaan moom li ko war te yi dafa bari julli ci jàkk ci mbooloo mi dafa bokk ci chart yi soo ko mënee kon foog ñu bàyyi ci xel loolu bokk na ci di fa aussi ci biir jàkk ji def ci bokk di lazim tam daf ci bokk te ñun dañu bëgg a nekk ay taalibe na tijaan yi ah, kon bokk foog ñu bàyyi ci loolu xel jaajëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax xam naa ne euh, visité nañu loo xam ne c'est l'essentiel ci waxtaan bi jotoon nañu am jotaay bu njëkk ci euh, ndekki bi am na ay points yoo xam ne waxoon nañ ko ba sa xarit yi nga xamante ni ñoom ñoo dëddu àdduna ku ci mel ni may sapar sapar ñu koy ñaanal euh, yàlla xare ko àjjana ci barke borom bés bi ci barke ku tedd gi di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yow it ñu lay bàyyi ki nga xam ne moo nekk nii sa ginnaaw boo nekk booy dox sa ginnaaw ak sa kanam yëpp ma nga fa ñu ngi lay ñaanal jàmm ah, te it euh, presse bi yëpp ñëpp ñëw nga dalal leen yaatal leen di kaf di ree loolu yëpp ñun tamit ñu ngi lay gërëm ah, di gërëm famille bi yëpp macha allah jaajëf.